حجة الأخاء بسر وسر مهنيا على المصطفى منجوده نهويا سبان أي الله يا رحمن يا من أخذني فسل بتسليم على خير من لبى أي الله يا رحمن يا من أخذني فسل بتسليم على خير من لبى mu ne xam nañ sa taxawaay ba ak yéen ak Pastef yëpp xam nañ lépp waaw. liggéey bu am solo la ñu def kon ñu bàyyi bu liggéey. daanaka ci tënk loolu la ñoom ñoom ñii ñëpp nag ñoo bokk fa ñuy liggéey nga xam ne dañoo daal di boole loolee tey jii ngir jébbale si liggéey bi li ca sant suñu borom di leen ci sant yéen ko tax ci seen barke waaye itam fas ko yéene euh, joxe waay si yenn at yi màggal ndax xam ne màggal bu jot dañ ko doon defee at mu jot bu ñu fii nag bokk na sax ci box yooyu ñu yóbbu ca suñu daara ja ispitar suñu jëriñ si ñun si ndax xam ne foofa itam ay gani bi dañ fay waaye ñoom ñoom jox nañ ñoom ñoom lii seen at yi màggal la ñoom waaw mu ne lii li li lii daal mooy wane ne loole ñu doon def moom yàlla dogal na yegg na ñu ñu ñu ne nañ ko def nii ngeen ngeen def ngeen defe nañ ci ñaan ngeen mu gën a barkeel waaw ngeen mu gën a barkeel bii fi lay des ah, waaw waaw moom moom dañ koy bàyyi fi yee des waaw fi yee des waaw fi lay des waaw بما فاق سني وتسمني الصعبان مددت منيبا أنز الوسف الربا ملت يدي يا مالكي راجيا لكن قريبا منيبا أنز الوسف الربا نفيت الأذى asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi Mbàkke ñi ngi lay ziar ñi ngi lay nuyu di la sant ci dalal gii ngeen ñu dalal tey ci biir résidence Cheikhul Khadim bi wax dëgg yàlla duñ ne guléet yàgg nañu ñëw nga ñuy dalal di ñu ñaanal baren gi yàlla def na nag yàgg naa fi ñëw man sa njaboot sax laa bokk doon fi ànd ak samay kilifa sudane ba yàlla di def Expresso si dox ba at bi ñu génn ñu tabb ma ma nekk fa directrice général donc ma sant sunu borom subhanahu wa taala bu baax a baax sant leen ci tamit ndax xam naa ni yàgg ngeen ci jàpp di sàkku seen ñaan yàlla dimbale ñu mun a eggle mission bi c'est la première fois ñu dénk ko sénégalais donc amuñu beneen euh, li ñuy wax option lu dul rek réussir ñu ci sàkku ñaan bu baax a baax Mbàkke donc tey sunuy tànk nag fii biir Expresso dañ fi ñëwoon ci weeru koor bi gis si woon euh, xalif bi sëñ Muntaxa Basiir Mbàkke eggali ko suñu yéene bi ñu amoon ci Touba jàpp ci liggéey bi ci liggéey sëñ Touba bi ci loo xam ni ñun mooy sunu domaine muy wàllu xarale jëm ci internet jëm ci également wootante seen biir ci équipe yi coordonné liggéey bi jëm ci jumaa ji jëm ci résidence Cheikhul Khadim jëm ci daara Maam Jaara Poroxaan jëm ci université bi Cheikhul Khadim ñu bugg ko yaatal tam mu egg ci opito yi incha allah bi loolu amee mu nangul ñu ko liggéey bi tàmbali wax dëgg yàlla waa Touba tamit jàpp ci bu baax sëñ moodu Kara mi sëñ Assane Mbuub ak équipe yi nekk fii yëpp sur place bokk ceeg suñu équipe technique bi ñu farlu ci eggali liggéey bi ba tey loolu moo ñu indiwaat mu tombeek mu tombeek safar gi ñuy jubli màggal donc lépp di taw feex ci ñun ñu ñëw nag di leen sant di leen gërëm ci euh, possibilité bi ngeen ñu may ñu mun a def liggéey bi ba mu egg tey di feddale suñu kóolëre di waxaat ne ñun Expresso Sénégal dëgg la liggéey de moo ñu tax a jóg jaay ay puces ak ay services waaye nag am nañu wàll ci développement économique surtout ci cité religieuse yi Touba da cee bokk te def ñu yitteel donc daal taxaw nañ taxawaay goo xam ne bépp soxla boo xam ne ñun Expresso mun nañ ci taxaw jàpp ci ngir euh, dëkk bii di Touba gën a avancé économiquement ci wàllu xarale euh, on est prêt à gunge leen ci loolu donc di ci sàkku ñaan di la sant di sant sa équipe bi yëpp tamit tey dañu ñëwoon tamit feddale waat rek ndax xam nañ ne ci màggal lañ jëm ñu amoon ay euh, numéro yu ñu jagleel comité organisation bu ko defee ñoom ñu mun a jokkoo seen biir duñu fay dara loolu lañu defal ñi nekk ci grande mosquée bi dañuy coordonné seen biir di waxante seen biir te duñu fay ñu defal ko tamit ñu nekk ci université bi bëgg ko yaatal ci mairie bi ak euh, hôpitaux yeeg yëpp fépp fu soxla bi euh, yemb rek allah donc tey loolu moo doon suñu yitte ak suñuy tànk Mbàkke Balla di sàkku ñaan di la gërëm di la sant euh, di sàkku ñaan daal soxla nañ ko lool Mbàkke Balla di sàkku ñaan bu baax a baax di joxewaale suñu àddiya ci màggal gi te di la sant di la gërëm ci turu Expresso yëpp incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu bu baax waa di nuyu Soxna Soxna Fatou saw di ko nuyu ak mboolem ñi mu àndal ñëpp di la yóbbantam nuyoo ci sa borom kër sëñ Abdou Khadir ndax moom euh, borom këram ci waa kër sëñ Abdou Khadir la ko. yàgg na fay ñëw loolu di ànd ak ay kilifaam ni mu ko waxee ak mu jot daanaka war naa jege fukki at ba suñ borom yàlla def tey mu teg la ci bopp kër ga kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yaakaar jooju ñu am ci ak kóolute gi ba tax ñu dénk ko yàlla na la ci yàlla defal ndam ba nga am ci lu ëpp li séntu ci yow di gërëm ñu ngi ànd ñëpp nag rawat suñu doom bopp suñ Modou Kara ci liggéey bi nga xam ne ko yow ba li ngeen ci am ci ndam ngeen ko ci ak sëriñ Assane Boub mi nga xam ne moom jàmbaar la di ku am taxawaay ci yoon wi ak yeneen bokk taalibe bi yëpp di ñaan yi nga xam ne yéen ngeen ko fee def rawatina lu jëm ci bu Tarqiyyah nga xam ne seen diggante yàgg na ñu koy yeesalaat ak li ngeen def ci université bi loolu lépp sëriñ bi ngeen koy defal ñu ñaan eh, kër gi gën a barkeel bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah